Euh, na nga jotal sama njaal ci réew mi te xam na ñàkk nañ ko baax coon sëg lu ma sam jox na ko réew mi waaw école bu mag baa ngoog man ak moom dañoo yàgg ci jamono Abdoulaye bu ba léegi ñeent fukki at dara mësta ñaaw plus de 40 ans d'amitié dara mësta ñaaw voilà euh, foire internationale bii li ma lépp jox na ko Sénégal moom coon sëg kon yàlla na xam sedd du ko jaal ma pend sek di ko jàll Assane Ndiaye di ko jàll euh, euh, euh, Waly Seck sunu doom di ko jàll Laminar di ko jàllit maanaam artistes yëpp waa jël jàll teg ko ci le président de la de son excellence monsieur Macky Sall gardien de la constitution protecteur des arts et des lettres di ko jàll di ko jàllit madame Faye Sall. la daam dame madame Faye Sall di ko jàll Sénégal gépp te xam ne ñàkk nit ku baax un monument nit ku dëggu nit ku baax nga xam ne lu ma sa téere kon ay yàlla na xam sedd coon day sama gànnuwaal sama xarit li lay wan loolu CEDEAO wi yor projet bi nga xam ne suma na ko di CEDEAO en bu yàggal bi ma ñëwee Sénégal toog nañ ca këram ñu toog di waxtaan yëg ca kaw man ak moom ak yàlla ñu toog di waxtaan rek ci projet bi li lay wan ne ndey ji seex la woon doonoon nit koo xam dinaan dajale ndax Sénégal benn bopp rek kenn mënu koo xaar ñaar te loolu moo lay wan ne Thione Seck wax dëgg yàlla nit ku yaatu woon lépp lu mu mës doomu aadama yi te di gërëm it journaliste yi nii ñu ko taxawoo te xam ni loolu Sénégal waaw kon muy Bécaye na nga jotal sama nuyoo jotal sama njaal ci réew mi te xam ne ñàkk nu ku baax un homme de valeur yàlla na xam sedd ci barke Seydina Mohamed yàlla na ko yàlla yërëm te yéexu na ñàkkarum ku baax ku ñeme dëgg ku dëggu léegi di ko jaar Sénégal gépp am na benn morceau boo xam ne boo ko naa leen ko baaxee boo xam maa ko fentoon man ak Thione Seck ca jamono yi ngi wér man ak Pape Mboup orchestre ngéwél Pape Mboup Thione Ballago Papa Djibi Ba ngéwél gi neex na Pape Mboup Thione Ballago papa ji bi bàggewel gi neex na xaritoo doomu yaay la saxoo di waxtaan ci yokkute réew me xaritoo doomu yaay la saxoo di waxtaan ci yokkute réew me saxoo ànd gi mooy mooy li am solo saxoo ànd gi rafetal mooy li am solo buñ ci saxee dal Sénégal gën am na tànge xaritoo doomu yaay la saxoo di waxtaan ci yokkute réew mi papa mbuub coon balaago papa jibi baa ngéwél gi neex na papa mbuub coon balaago papa jibi baa ngéwél gi neex na yàlla na koy xam seet ndeysaan li maak coono ko woyoon ca jamonoy ngéwél yàgg na ndeysaan yoo xam li yàgg na dëgg la te dara mës sa ñaaw yàlla na xam sedd ci barke Seydina Muhammad wallaay wallaay jërë ngeen jëf Alaaji Bekaay Mbay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ci élément boobu ah, euh, élément bi démb sax lañ ko waroon a teg mhm. ah euh, ci ci li nga xamante ne moom mooy plateau bi ak Père Bekaay mhm. euh, Pape Tafa damay rebondir parce que tey jii ci plateau bi yow yaa gën a apte pour wax ci ki nga xamante ne moom mooy Pape Djiby Ba